inspection générale des élections ñoo ko gës ñoo ko jël lankoon ne du ñu jox mandataire bi di Ayib Daffé fiche de parrainage yooyu nga xamante ne mooy tax mu mën a bokk ci yële élection mm-hmm. ay avocat am nag jot nañ notification bi leen wan na Ousmane Sonko dañ ko génne ci liste yi ba tax na daal dinañuy attaqué boobu les décision fële ca euh, tribunal bu Ziguinchor mm-hmm. li ko waral nag moo di Ousmane Sonko foofu la bindoo te foofu lay wootee wàllum parrainage bi tamit euh, dinañ ci yéenekaay la a baax mandataires yi nga xamante ne ni ki démb ñu nga doon daje ak waa direction générale des élections ngir ñu gën leen a xamale ak mbir mi naka lay doxee moom ay sikki sàkka yu sam ak ay njàqare ndax euh, ku ci mel ni Mounirou Sow di mandataire bu jonn 2024 li moo xam ne nag moo di parrainage externe bi am na ci ay xel ñaar ndax euh, li ko sooke du leen ki njëkk a ñëw moom daanaka mooy ëpp chance ki nga xamante ne moom mu mujjee ñëw euh, leneen tamit ci yéenekaay bi di Le Regard moo di Amadou gannaaw bañ ko tabbee am na ci ñu bëri ñoo xam ne dañoo fippu ne ànduñu ci tabb biñ ko tabb euh, waaye tamit am na jamono ji euh, xiiroo ngaayoo boo xam ne am na ci bile coalition di Benno Bokk Yaakaar te dara waralu ko lu dul bi ñu tabb coordonnateur euh, dep yi war a nekk ci département yéenekaay bi di la regard ñëw na tamit ci ubbite classe bi Euh, ak li nga xamante ne euh, mooy euh, abri provisoire di néegu ñax yi xale yi di jànge mu ne am na ci lim bu doy waar boo xamante ne jamono ji mën nañ ko compter ci ay néegu ñax yoo xam ne xale yi dañu fay jànge laas yéenekaay ku tedd ki la xëy di sëriñ Muntaxa Bachiru Mbàkke mu ne fatwa bu yees bi mu def nag daf ko jëmale ci njàngale mi foofu ca Touba mu ne lépp lu fa waaye di jàngale rek na njàngalem sëñ bi jiitu ci waa moo tax na nag euh, mi ngi dànkaafu képp koo xam ne daal daf cee bëgg rax leneen loo xamante ne du njàngalem sëñ bi euh, soo moytuwul daal da nga ca am ca jafe foofu ca Touba laas yéenekaay ñëw na tamit euh, ci présidentielle 2024 ci ak pur bi nga xamante ne xamale nañu sénégalais yi kii seen candidat Aliou du Dia lay wuyoo di benn fonctionnaire bu Nations Unies ku am carrière bu baax ci au niveau international l'enquête yéene kaay xëyewaat tamit ak ku tedd ki Serigne ba Bachirou Mbacké euh, mu ne lu jëm ci wàllum extrémisme nag Serigne Mountakha taxaw na ci bu baax a baax di ko xeex maanaam ñi nga xam ne dañuy xaabaabal ci wàllum diine loolee nag di ay kàddu yoo xam te yëkkati na ko di xam ne daal képp koo xamante ne da nga fas yéene jàngale mbaa ngay euh, joxe ay cours foofee ca Touba euh, na ci njàngaleem sëñ bi jiitu. Walf Quotidien mu ne Yewwi Askan Wi jamono ji ku nekk ak bopp sa bopp la voilà Yewwi bopp sa bopp la ci xëtam bu njëkk mu fësal ci Serigne Moustapha Sy euh, teg ci Ousmane Sonko Soxna ay Mbodj ak Déthié Fall ñoom ñooñee ñëpp jamono ji ku nekk am nga sa candidat boo doonul candidat loolee waral mu ne jamono ji nag euh, yeewi askan wi bopp sa bopp la moom Walf Quotidien ci xëtam bu njëkk dañ fay fekkaat kii di Alioune Sarr nekkoon fi ministre du commerce ci Macky Sall bokkoon AFP euh, mën nañ ba tey bokk AFP sax waaye jamono ji nag dafa fel euh, yoonu boppam waral nag mu daal di gaaral lii di programme am ak ñi nga xamante ne ñooy waa Walf Quotidien beneen yéenekaay Sud Quotidien mu ne mbiri doublon externe nag jamono yi mu upp bopp ñi nga xamante ne ñooy mandataires yi démba euh, naqaru nañ ko bu baax a baax ci ndaje bañ doon amal ak waa direction générale des élections ndax dañu jàpp ne daal doublon externe yi ni ñu koy doxalee nii dafay wane ni ki njëkk ñëw rek mu ëpp ay chance pour jàll ki mujjee ñëw Euh, bokk na ci liñ ci yëkkati mu ne soo njëkkee yëg si rek daanaka doo am dublon waaye ka ca topp toppaat ka ka ca toppaat toppaat ca ñooñee faw ñu am ay doublon parce que mbir mi collecte yi na mu demee la loole nag amuñu ci saafara ndax dañu jàpp ne jamono ji béy wëy na mbuus source a mu mbiri Ousmane Sonko la xëyee mu ne avocat yi moom meeru Ziguinchor boobee Eh, jamono ji nag jubal nañ ca sigi coor ngir daal di saisir ki nga xamante ne moo di euh, président bu tribunal ba euh, gannaaw ba ñu jotee li nga xamante ne moo di notification bi démbal nañ ci jot bu leen wane ne Ousmane Sonko mujjee nañ ko ràjjee ci euh, list électorale yi ñoom ñooñee document boobee nag la ñu jël ngir dem débal ko président bu tribinal bu Ziguinchor ñu ne nag loole nag juridiction boobu moom moo habilité def ko ndax Ousmane Sonko foofee la bindoo waaye lay lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukki nit ñoo samp seeni ndënd bëgg laaj réew mi loole nag euh, su yéenekaay bi di Source A di ci samp ab laaj ndax fu ñu jëm ndax candidature yu bëri yi te jamono ji noppe guñu Vox Populi mu ñëw te yimit eh, ci rencontre ba nga xamante ne président Macky Sall amaloon na ko ak i ñoñam yu Benno Bokk Yaakaar mu ne Amadou Ba eh, jël na fa ay engagement ngir doxal mbir mi jaarale ko ca yoon eh, ñeneen nag ñeneen jël nañ fa kàddu ku ci mel ni ñoom Abdoulaye Daouda Diallo ak i ñoñam waaye jamono ji daal wax ji mooy naka lañuy def ba Amadou Ba daal di am ngañaay li dès le premier tour euh, loolee nag équipe parrainage yi loolee lépp teg nañ ko honorable député euh, Abdoulaye Diagne moo ko jiite euh, ñëw na ci ñi nga xamante ne dañoo mer ci ba ñu tegee parrainage yi dikkaat na tamit moom Vox yi ci fatwa bi nga xamante ne xalif général de Mourides def na ko ak képp koo xamante ne da nga fas yéene xëtt ndigal li nekk foofee ca Touba Malick Gakou mu ngay gaaral programme am bi nga xamante ne dafay tourner ci ñetti R yi la ñu wax témoin yéenekaay mu ne Ousmane Pastef entre l'heure et l'heure waaw Pastef l'heure et lueur autant pour moi Pastef li waral mu wax loolu nag mu ne principal bi ki nga xamante ne mooy njiitu Pastef euh, parti ba tas nañ ko moom jamono ji mu nga ca kaso ba ñu teg ay candidats yu bëri ndax dañuy jéem a lëre kan moo nekk ci biir candidat bi euh, Pastef daal mu ngi ci guddi gu setagul moo waral euh, le témoin yéenekaay daal di jël ci xëtam bu njëkk jagleel ko ko waaye ba noppi samp yu bëri nga xamante ne samp nañ fa seen ndënd ci kaw yéenekaay bi di témoin dañ fay fekk honorable député Abdoulaye jaañ moom mi nga xamante ne euh, moom mooy coordonné parrainage yu Benno Bokk Yaakaar bi au niveau national euh, loolee nag ñu ne ab surprise la boo xamante ne kenn xaaru ko fa woon mu dikkaat ci jaar-jaaru honorable député Abdoulaye Diagne nga xamante ne moom moo jiitee élèves et yu euh, maire di élèves étudiants républicains yu nekk ca parti boobu de APR di ak ndaw bokk ci député yi gën a féeteek ndaw nan moo waral président Macky Sall tànn ko foo xamante ne élection yi ñu génnoon soxna Aminata Touré moo fa nekkoon loole moo waral ñu ne moom mooy surprise chef bi beneen yéenekaay les échos yéenekaay lañ koy woowee mu ne le secretaire secrétaire général bu ordre bi nag ma ngay weddi ñi tuuma yi nga xam ne dañ koy yëkkati jëmale ko seen kaw ne daal dañ leen a jafe jot wala du ñu tontu yooyu yëpp indi nañ ci ay euh, tontu ñoom nag nee nañ kàddu yi nga xamante ne Juan Branco yëkkati na ko ñoom seen yoon nekku ci ndax du kàddu yoo xamante ne euh, soxal na leen. dañuy ñëw tamit euh, ci euh, ba tey ñu ngi ci yéenekaay bi di Les ko mu ñëw ci euh, tànn gi nga xamante ne Benno Bokk Yaakaar tànn na ko ñi nekk ay coordonnateur jëm ci parrainage bi mu ne nag am na ci ñu bëri ñoo xamante ni fi ñu toll ni mer ba futt la ñuy def rawatina waa parti socialiste ak ñi nga xamante ne ñooy waa AFP waa parti socialiste nag kii di ministre bi di maire tamit di Aliou Ndoye moom dafay sàkku ñu amar ab réunion d'urgence bu secrétariat exécutif national bu parti boobee su ko defee nag ñu daal di toog waxtaanee ko ndax mbir mi daal bett na leen bettaay goo xamante ne xamuñu naka lañ koy qualifier keneen tamit di maam bu naa ma Sall moom nag moom demoon yi dafa xamul sax lu muy wax pat bii la def l'observateur yéenekaay dafa ñëw ci ndaje bi nga xamante ne amoon na ca diggante Macky Sall ak i ñooñam Amadou Ba euh, kaddu yi nga xamante ne yëkkati nga fa dalal xel ñi nga xamante ne ñoo bokk ci boobu boobule coalition waaye tamit euh, tànneef bi nga xamante ne président Macky Sall tànn na ko Abdoulaye Diagne ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci région yi ngir dajale yooyee nga xamante ne ñooy parrainage yi leen war a yóbbi ci élection présidentielle yi. ñëw na tamit ma ma du jax bi nga xamante ne moom mooy candidat bu PUR euh, mu ne nag euh, surprise de boo xamante ne euh, kenn xalaatu ko woon ñëw na lu mbir ci mbir mu yéeme ba amoon fële ci cité mixta di ay ndaw ñoo xam ne dañ fa daje woon di def ay yëfu saay-saay ak naka sudul noonu di voler di suus di metti di def lépp loo xamante ne ñaawteef la waaye jamono ji ñu nga ca commissariat bu Parcelles Assainies ndax ñoom ñëpp teg nañu leen loxo le quotidien yéenekaay mu ne Ousmane Sonko nag jamono ji moom ca yoon la yóbbu ñi di waa direction générale des élections moo tax mu ne Ousmane Sonko tourné na jëmale ay gëtam fële ca yoon ngir ñu àtte ko ak direction générale des élections bi mu jàpp ne dañoo def naka su dul ci lu jëm ci candidature am bi mu bokk gi mu bëgg a bokk ci élection présidentielle yi bés bi yéen kaay xëtam bu njëkk dafa dalal kii di El Hadji Ibrahima Sall moom nag candidat la samp ndëndëm di laaj réew mi El Hadji Ibrahima Sall mu ne moom partem amul benn pacte wala liaison boo xamante ne am na ko ak APR wala Benno Bokk Yaakaar mu ne bés bu nekkee président de la République lépp li nga xamante ne dafa jëm ci wàllum démocratie bi nga xam ne dañ koy salfaañe di ko def naka sudul noonu dana dakk ci bilee réew mu ne lan moo waral ñu mën a njort ne xar kanamu Sénégal mën naa soppeeku loolee nag mi ngi ko xamale benn entretien boo xam ne séq na ko ak waa bés bi yéen mu dikk ci nu mu gën a yaatoo yaatu yoor yoor yéen kaay bi lañ fay fekk mu samp ndëndëm moom tamit Dame Mbodj lay wuyoo mu ne élection présidentielle yi ñu dëkkmal bis bu jaaree yoon Amadou Ba deuxième tour du fa yegg ndax amul doole joo xamante ne mën na ko faa yeggalee yor-yor yéenekaay ci xëtam bu njëkk tamit ñëw na ci candidat wu PUR bi di mëma Mamadou Dia mu ne candidat boo xamante ne buñ la waxee ay jaar-jaaram foog nga respecté ko ndax jaar-jaar la boo xamante ne du ñëpp ñoo ko am ci réew mi waaye tamit néew na su fekkente ne gis nga sax keneen ko am bile jaar-jaar bu ni mel. tribune yéenekaay dafa ñëw nag ci euh, Mamadou El Hadj Mamadou Moustapha euh, ba euh, jëwriñ bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum koom bi mu ne kàddu yi nga xamante ne moom lañ yëkkati woon ne Euh, jëw euh, koom réew mi daal mi ngi ci euh, naataange ak baax li nga xamante ne mooy weddi jëwriñ jooje bokk na ci situation économique boo xamante ne tar na taraay boo xam ne góorgóorlu bi jamono ji mi ngi dund lu méttee métti waaye tamit soxla bi nga xamante ne soxla nañ ko xaalisu liquidité bi nga xamante ne jamono ji jàpp nañ ne xaw na manqué ci réew mi loolee lépp tribune yéenekaay ñëw na si daal di xam ne daal koomu réew mi moom fi ñu toll nii moom euh, lu ne mën nañ koo wax ba mu des ne mi ngi ci wér-gu-yaram bu baax a baax tribune yéenekaay ñëw na tamit ci ubbiteg année 2023 2024 mu ci xam ne daal abri provisoire yi yémee na am na école yoo xamante ni ba léegi euh, ndox maa nga fa wala ñax maa nga fa ba tax na mu ne ñu ngay ubbi tey waaye ñort na ni ubbi tey jàng tey du mën a nekk tàggat yaram la ñuy dem ak stade yéenekaay moom dafa ñëw ci euh, Ligue des champion bi nga xamante ne tey la ñuy door ñaareelu journée bi nga xamante ne dina dox ci diggante Naples ak Real de Madrid ak euh, Manchester United di daje ak galatasaraay Inter de Milan di daje ak Benfica mu doon ay rencontre yu am solo yoo xamante ne euh, njortu nañ ne daal ndaje yooyu dina am solo mu aju ci ñaareelu journée bu Ligue des champions sunu làmb yéenekaay mu ne Zos mën na créer surprise nag ci digganteem ak ki nga xamante ne euh, loolee ki ko xamle euh, moo di euh, Aliou Ba moom nag dafa doon wax ci combat bi jëm ci diggante Zos ak adafas Fass dañuy daanelee ak record yéene kaay xëtam bu njëkk Nampalys Mendy lañ fay fekk mu ne nag moom mu nga lance jamono ji mu ne nag fi ñu toll nii Nampalys li ko war rek mooy confirmer ndax bu ñu fàttali ko matcham bu njëkk Nampalis dafa defoon match bu rëy euh, tey nag euh, ñoom ñooñee ñi nga war a daje ak waa Arsenal di match bu mag a mag buñ koy xaar moom milieu terrain bu Sénégal bi match boobee mi ngi war a am tey ci 19h ñëw na tamit euh, ci Mori Diaw di gardien de bu Sénégal bi nga xamante ne jamono ji nag mu ngay toj clubam di jamono joo xam ne tamit. Edouard Mendy di gardien de but titulaire bu Sénégal moom jamono ji xàmmewul guddi ak bëccëg moo tax mu ne Mori jamono ji bu ñu moytuwul dina jël place su Edouard Mendy